Um, at at Elimane Ndiaye euh, ñu nekk ñu ñëw si benn club boo xamante ni de a des problèmes presque temps yëpp mm. euh, sànq maa su ma tey maa ngi gis la une de de l'équipe euh, ñuy wax si bon en tout cas daal ça va pas est-ce que à votre avis est-ce que dañu dañu def erreur wala le fait que ñu ñëw à Marseille bon avant même avant même sax problème mu Marseille yi man j'avais dit que ni benn benn benn ci benn télé de la place que ni c'est un couteau à double tranchant soo demee si Olympique de Marseille ils ont un public extrêmement bouillant. Quand on parle de vélodrome, si on constate, mm. ils ne te pardonneront pas de une chose, ñaari yoon. et et Ismaïla aussi bon ñëpp xam nañ ni il faut faudrait que mu persévérer ci wàllum jeu Eliman aussi il faudrait ko aussi mu mu mu mu gën góor góorlu aussi ci li muy def far nag yàlla def ci diggante bi ils ont eu un problème parce que euh, ay groupe de supporters. ñoom ñoo ne entre guillemets menacé wala ñeen ñi bokk Marcelino l'entraîneur sortant bi nga xam te dem na. Mhm. nañ ne ko dañ leen menacé Pablo Longoria a fait une sortie à deux reprises def na ci benn genre sax interview bu mag a mag boo xamante ni c'est pas du Pablo Longoria. Mhm. Euh, wax na que ni il va rester ci biir club bi on parle aussi d'une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille a des à des Saoudiens. ñu ngi koy wax dem nañ ba ne sax ni Zinedine Zidane j'ai lu que ni euh, Zinedine Zidane peut-être dem nañ ba wax waxtaan nañ ak moom ba ne on va lui donner une enveloppe de millions d'euros pour faire un recrutement double XL mm-hmm. là ça se dit je ne sais pas am na moom mooy euh, la de Gennaro Gattuso l'ancien joueur du Milan entraîneur aussi euh, de Napoli tout ça là en tout cas c'est un entraîneur qui est très très bouillant c'est un entraîneur boo xamante ne ku bari caractère il a il a il a contexte bu nekk ak dëkk bu nekk ak li nga xamante ni bii nii moom nga fay am. Mhm. xam nga àddina entraîneur nit entraîneur mun na ay lool mais mun na bañ am chance mais la chance moom moo am solo. am na entraîneurs yoo xamante ni ils sont un peu limités. je mhm. dirais même très limités mais ils ont la chance de gagner. loolu loolu loolu c'est le football. jërëjëf Mbaye